ñu tëdd ci mbedd wala ñuy wax ñoom kase mu nekk ay siñu feebaru xel ngir wax ci ñi nga xamante ni dañoo amee feebaru xel ci biir kër yi jafe nañu gis ku ñu waxal. Ah. yenn saay sax kenn du la faale. Euh, kër gi nag ñuy gis ku am feebaru xel moo fi nekk dañuy dem dugg ci biir ngir gën a am ay xibaar. fii nag moom ki nga xamante ni magam moo feebar buggul waxtaanee loolu ci biir kër gi ne foog rek ñu def nànk dafa am ñu feebar ak ñu tappale moom da nga da dafay suivre ay responsabilité jaay il faut suuf góor gi nag moom.

ci hôpitaux yi ci lim boobu nag 3515 ci ay malades mentaux ñoom lañ fay téye ci loolu lépp nag lu toll ci fanweer ak juróom-ñetti médecin yoo xamante ne dañuy saytu lii du feebaru xel ñoo am fii ci Sénégal ñu yóbbu leen ci juróom-ñetti région yu nekk Sénégal ci fukk ak ñett këru fajukaay mu nekk centre psychiatrique yi nekk biir Sénégal juróom benn yi biir Dakar la nekk ndaw si nag moom jëkkëram juróomi at a mu am feebaru xel. est koy jàppale di moom par waaw day boobu ba léegi benn hôpital buy fàcc ku xelam tàgg sagooma bugg ko jël ndaxte ñoom dañu fees